asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet SSP TV dal leen ak jàmm tey dañuy wax ci ki nga xam ni mooy Wally Seck li nga xamante ne moo waral coow mooy concert bi nga xam ne doon na ko def fee ci France mu soloon fa dàll yoo xam ne andi na coow bu bëree bëri ba tax na ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi ay wax yu bëree bëri ñu ngi ko ci wax dont sax Wally Seck mu jën a génn ba ba ba wax na ci ay leeral yoo xam ne daf na ci ay leeral yoo xam ne leeral na ko ci mbir yooyu waaye man moom li nga xam ne moom laay wax te concerné wul kenn man mi nga xam ni moom laa ko wax man la concerné Wally Seck génnoon nga fi génnee fi benn saak ñëpp sénégalais yëpp di wax yemul foofu nga soloon fi benn tiset sénégalais yi ñëpp di ci wax yemul foofu nga ñëw solaat dàll man waxuma ni Wally Seck góor jigéen la dama wax sama xalaat gis nit ñi man dama jàpp ne Sénégal Wally Seck lépp loo xam ne doon na ko sénégalais yi ñoo ko ko def te man dama jàpp ne ki sooy def benn affaire boo xam ne mu leer na la ñi nga xam ne loo doon ñoo la ko def loo ñoo tax nga doon li nga doon bis bu ñu buggalee benn def benn affaire bëgguñu ko su la nee ñun bëgguñu lii dama yaakaar ni yow war nga def tout ba moytu loolu. mais mënuma kii considérer benn affaire boo xam ne yow yow nga génne fi benn saak sénégalais yëpp di wax nga ñëw jéggalu nga ni ko laaloo loolu bokkul ak góor jigéen dara jëmoo lu jëm seen problème yemul foofu nga génne fi sol set li ma gën a jaaxal période bi nga xam ne moom nga koy soleek gis nga nit ki suñ lay jiiñ dara yow ak dayoo bi nga xam ne toll nga ko danga war a moytu mais saa yu lay jiyee ba loolu jeex rek nga ñëw laaj beneen dafa war a jot nag yow Wally Seck nga xam nga koy yaay kan ngay xool ni ngay def sénégalais kenn moomu leen gis nit ki buñ la jiiñ dëmm ba pare ngay socco yeelu liir Wally Seck lépp loo xam ne waxal nañ la ko yow yaa ko def doomu aadama dangay moytu lu bari jot na ne nga gën a xoolaat sa bopp gestes yi nga xam ne yaa ngi koy def jot na nga xool